voilà li tax ñu soppi ko mooy ba ñuy dema ba ñuy door ba ñuy door euh, euh, dafa amoon ay euh, investisseur yu ne ñoom seen attachement pour l'Afrique tax na ñu bëgg def un groupe financier fort en Afrique mais fu ñu koy tàmbalee mooy fii ci Sénégal parce que gis nañ ni Sénégal am na stabilité te am na dynamisme économique ak positionnement boo xam ne bu jàkkaarloog Europe ak États-Unis bu leen permettre ñu mën a tàmbalee fii Dakar ñu wut tur ñu gis ni turu banque yu mag yi yëpp ci capital lañ démarré Banco Santander Banque de Paris Banque euh, Citibank et cetera ñu ne pourquoi pas ñu jël fii banque de Dakar BDK foofu la jóge ñu tàmbali nag ci BDK après ñaareelu banque bi nga xam ne moom lañu ñu tijji dañu dem Abidjan tijji ko initialement ca njalbeen dafa waroon nekk banque d'Abidjan euh, banque de Dakar mais on s'est rendu compte que banque de Dakar à Abidjan ça peut ne pas sonner Les autorités nous ont dit, ah mais banque de Dakar, banque d'Abidjan, banque de Dakar, ñun non léegi nañ ko def banque d'Abidjan léegi bi ñu ko defee banque d'Abidjan xam nga suñu groupe déjà banque de Dakar BDK mais il faut pas confondre les gens ont toujours confondu BDK la banque de Dakar ak le groupe BDK le groupe qui coiffe l'ensemble des filiales moo tax nag ñu ne léegi lan moo lié filiales yooyu yëpp yi nga xam ne Afrique lañ nekk mooy l' Afrique l' attachement à l' Afrique ñu moo tax ñu tuddee ko groupe Africa maintenant ki va réunir l' ensemble des filiales qui sont implantées en Afrique loolu moo indi changement te comme commencé nañ aussi tàmbali nañ aussi am expérience parce que euh, banque bi ñu njëkk a implanté fii mi ngi tàmbali ay activités am 2015 mais ñoom investisseurs yi ñi ngi tàmbali wër Afrique 2013 donc ça fait dix ans donc ñu ne jot na léegi ñu jël li nga xam ne moo boole réew yooyu yëpp muy Africa moo tax ñu def banque d'Afrique euh, groupe euh, groupe Africa waaw ah, pour l'instant ñi ngi ci juróomi réew ñi ngi ci ñeenti réew euh, Sénégal habit euh, Côte d'Ivoire Mali ak euh, Guinée Guinée Conakry voilà